laa ilaaha illallah allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil aalamiin arrahmaani rrahiim maaliki yawmi ddiin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 hal ataaka xadiisul xaashiyati wujuuhun yawmaydin xaashi'atun aamilatun naasiba taslaa naaran xaamiyatan tusqaa min aynin aaniya laysa lahum taamun illa min dar'in laa yusminu wa laa yuxnii min juu' wujuuhun yawmaydin naa'imatun li sa'yihaa raadiya fi jannatin 'aaliya laa tasma'u fiihaa laaxiya fiihaa aynun jaariya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 inna ilayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamida rabbana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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu assalaamu aleykum. assalaamu.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 ما أحببته واخترته ورديته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند وصولها وبعد وصولها أبدا آمين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحمنا بترك المعاصي كلها ما أبخيتنا أبدا